kon ci loolu euh, xam naa ni bala ñuy dugg ci laaj bi mujj bi dañ koy dañuy dañuy permettre parenthèse boobu ak euh, série bi nga xam ni moom lañ tudd Mœurs nga xam ni euh, jamono yi niñ ko ni ko comme ni ko téléspectateurs yi wala internautes yi di waxee mi ngi def buzz ci loolu ñu remarqué ni maanaam xaw na sax jege wala mu raw maîtresse d'un homme marié tey yow envoyé naa lañ la vidéo bi superviser nga ko déglu nga ko d'après bi nga xoolee ak li ci nekk ak euh, scénario bi ni mu demee euh, par rapport ak suñu réalité euh, réew d'abord mais par rapport ak suñu diine lan nga ci jàngal. man day jàpp naa ne maîtresse d'un homme marié ak suñu jàmmaarloo ak ñoom li muy tar yépp il faut leur reconnaître que ñoom demuñu jusqu'à ce ce niveau de perversité extrême dëgg la le langage est vulgaire et tout wax nañ ko sànq et puis ñëpp gis nañ ko waaye mërs moom. bu doon médaille d'or am na ci dérive audiovisuelle ñoom ñoo koy remporté mais léegi nga ma yónnee benn extrait vidéo ndax man duma ko seetaan yaa ma ci dimbali moo tax may ñaan les entourages des xalif ñuy def nii ngay def <laughs> dëgg la yow dooru suma bëgg ne <laughs> waaye def nga laaya nga ma biir loo xam ne man xaw ma ko woon alors mais épisode bi nga ma yónnee ay xale yu tuuti 16 ans 17 ans dem fooye seen àdduna ba kenn ki ëmb ñu daal di am des échanges benn discussion boo xam ne ni ñu ko mënee tënk mooy ñu ngi def la vulgarisation de l' avortement la banalisation de l' avortement clandestin ndax kooku nga koy naan boo jëlee kii sangam euh, comprimé sangam. il faut rappeler ce nom que des personnages ah. mais scénaristes yi man foofu laa bëggoon ñu vocaliser wu parce que euh, personnage yi wala acteur wala actrice bi ñëw di jouer dañ koy jouer loolu rek fay ko mu dem mais ki nga xam ni mooy scénariste bi kii bind est-ce que jotul foofu tamit. ñu vocaliser wu yéen ngeen wax ak scénariste yi nga xam ni ñoom bu doon euh, togg la ñu ni ñoom ñooy dem marché ñooy ñooy ñooy def lépp ñooy kii yàkk ñu dëna la rek lañ def yàlla dafa dogal nii nga waxee j'ai tenu le même langage au responsable de maîtresse d'un homme marié parce que dëgg la suñu jàmmarloo ak ñoom li muy tar yëpp Jamra par honnêteté morale doit leur reconnaître de nous avoir rendu une de courtoisie ndax le patron de Marodi TV bi financé série bi Massa Ndour ñëw na fi ànd ak Khadija si ki est la scénariste je leur ai tenu langage clair pour tontu ci laaj bi nga laaj dama leen ni seen naataangoo yàlla na ko yàlla yërëm rahmatullah alayhi Cheikh Tidiane Diop bu jamonoy tey euh, bu RTS am na série bu mu fi defoon di ŋaññi mbirum drogue ak dégâts yi mu def ci jeunesse beeg euh, yokk insécurité dëkk bi tas na ay sëy kan na suloo xale yi mais ba série ba jeexee ay xale dañu ñëw daw seet si parce que xam nañ suñu relation amicale euh, fraternelle entre Cheikh Tidiane particulièrement entre Latif ak Cheikh Tidiane kenn ki ne Latif man de wax dëgg yàlla dama daan drogué wu mais bi ma seetaanee série bi ma gis acteur principal bi euh, nu mu nekkoon un cadre correct compétent bëgg jabaram bëgg doomam et waaye ba mu dajee grand xaa ba mu dugal ko ci musiba bi mu dugg ci na xaabaabal drogue bi commencé ko soppi mu commencé naqari deret commencé violent am na fu mu weranteeg jabar ji jabar ji wax benn baat rek mu dóor ko mbéj te daawu ko def mu dem ba fu mu doon liggéey ñu dàq ko ndax absentéisme bu bari bref xale bi ne daal acteur principal bi fi mu mujje man mu bugguma mujje foofu waaye damay drogué wu nag ma dégg nag yéen la di ngeen dimbali ay nit ndax xam nga jamono yooyu les cures de désintoxication coûtaient entre cinq 500 600 000 contrairement ak CPA léegi da nga indi 5 5000 francs prise en charge ñu toppatoo la mu ne sama waajur seen loxo jotul seen ginnaaw ma ne woon naa ñëw pour am koo leen ma booleel ndax dama bëgg génn ci affaire drogue donc voilà ma daal wax ñoom Massamba Ndour euh, bu Marodi ak Khadija Sy ma ne leen voilà une série qui a doublement atteint ses objectifs d'abord nekk na le reflet fidèle d'une réalité de la société sénégalaise ndax kenn mënu fee weddi ne drogue def na ay dégâts yu dul jeex ci société bi donc réussir nañ ko ils n'ont rien inventé waaye dañ ko articuler autour de scénario tellement intelligent que xale yi ko seetaan ba épisode yëpp jeex da ngay mujj ruus mujj am am am am kersa euh, film bi mujj la yadd ba doo bëgg leneen lu dul ku la jàppale nga génn ci ma ne kon ils ont parfaitement réussi ma ne yéen itam yéen maîtresse d'un homme marié le premier jalon vous l'avez réussi Jamra le reconnaît parce que vous n'avez été le reflet euh, de, de, comment dirais-je de l'infidélité conjugale bi yàq la société sénégalaise sama tonton gii sama compagnie gii les tonton saay-saay yi jóg di tàggu seen jabar waaw bon service bi directeur euh, commercial bi nañ dañu am séminaire Saly fekk li ma ci wax dara du ci dëgg weekend bi yëpp maa ngi jël xale boo xam ne mën na nekk sama doom wala sax suma sët luyel ko benn appartement fii maa ngi déclaré ne maa nga Saly nekk maa ngi fii di njaaloo guddi ak bëccëg ma ne yooyu ngeen di wax yéen maîtresse de no mariés bu n'avez rien inventé c'est la réalité mais là où vous avez échoué mooy da ngeen ko articuler autour d'un scénario qui fait l'apologie de la fornication qui fait la promotion de l'adultère da ngeen di daganal njaaloo te ngor bu ko diine bu ko c'est la où vous avez échoué et c'est pour ça qu'on vous a combattu alors kon nag mœurs remporte na la médaille d'or moo raw maîtresse d'un homme moo tax suñu xeex ak ñoom day metti ndax xam nga lu tax ñii dañu am un langage vulgaire dañu am de la pornographie verbale ay sama lii maa ko moom ku ma neex laa koy jox mais ñii ñi mais ñii mërs non mërs mooy def loolu mërs ñoom dañuy jël ay xale yu ndaw 16 ans 17 ans ni Khadija Sy nekkee scénariste maîtresse d'un homme marié te man wax naa ko erreur yi mu ci def waaye ce qu'elle a lépp réalité la waaye réalité da nga koy dénoncer mais bu ko valoriser alors ñoom waa mërs dañuy defar scénario ñi koy joué doon ñi dara ay xale lañu waaye nit ñaa ngi koy seetaan te impact bi uti audiovisuel am ci xelu doomu aadama foo ko nattawee suñu xale yi ñu ngay banaliser l'avortement ba pare di joxe ay formule kii naan ko na def lii boo naanee lii boo defee lii ba yàgg mu ne ko danaa la boole sax sama benn xaritu tànt xaw ma sama xaritu yaay xam na ci moom daal bu la defee nii defee nii ëmb bi dañ ñu ngi koy banaliser te dañu nekk ci diine joo xam ne. ak tux bi dañu nekk ci parce que yooyu xam nga maîtresse du ko def. ñoom tuxuñu drogue waxuñu wax yi dégg nga avortement. moo tax ma ne la kii bu doon bu doon championnat olympique la ñii ñoo remporté la palme ndax avortement yàlla dafa dogal ñu nekk ci diine joo xam ne xaramal na ko suñu mbokku catholique itam xaraamal nañu ko ndax bakken ñaari way dencante bu ñu xësee ba jotee la ca des xamuñ ci dara lu dul toog déglu parce que la ca des domaine yàlla la yàlla def nag ruu daal di ñëw dugg ci embryon bi mu daal di am bakken à partir de ce moment loolu nekk ci biiru ndeyam alalu borom bi la daf la ko dénk rek pour nga denc ko juróom-ñeenti weer boo paree mu ne la delloo ma la ma la joxoon ba tax na euh, terewul. diine suñu borom dafa am fu mu ko lal fu tedd fu bari yërmande laa iqraha fi diin ne il y a pas de contrainte en religion masalan yow boo doon tukki nga dem ba bëgg egg dëkk ba nga jëm mais nga réer di dox ay ñetti fan ñeenti fan ci àll yu bay bëgg a dee xiif nga ñëw gis benn medd xam nga medd diine xaraamal na ku ko lekk mais pour wax la ni diine bare yërmande ndax suñu borom bañ na ba ki mu dénk diine ji pour mu jantali ñu ko. di la jox lettre de mission nee na yow ministre de l' agriculture bi ma la dénk lii ak lii laa ci yow yow ministre de l' jox la lettre de nee na ak lii laa ci yow suñu borom itam malaaka bu mu yónni daf la jox lettre de mission mais lettre de mission yi mu jox yonent yëpp bi ci gën a daw yaram mooy bu Seydina Mohamed parce que lettre de mission boo ko tijjee baat bu daw yaram la ko wax daf ko ne wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dara taxul lu tax ma yónni la ci jaam yi lu dul fësal sama yërmande ci ñoom mu daal di ko dëggal ci alxuraan bi nag daal di ne laa iqraha fi kon yow réer nga ci àll bi nga nar a dee xiif médd nga foofu te alxuraan ak diine rëbb na ku lekk médd mais suñu borom ci yërmandeem nee na la may naa la nga jëfandikoo waaye boo ko jëfandikoo ba sowee ba am kattan ba egg ca dëkk ba xaramalaat na ku lekk noonu la def de sorte que avortement suñu borom même attitude la ci am dafa nekk la règle générale ci chariatul muhammadiya mooy xaraamal nañ ko xaraamal nañu bakken bu yàlla dénk nit parce que moomoo ko daf la ko dénk ci sa biir nga jóg naan ay comprimé wala nga dem ci docteur mu am lu mu def kii ko yàlla nee na faat bakken la xaraamal na ko c'est la règle générale mais terewul ba tey ci kaw laa iqraha fi diin suñu borom ne bu dee ëmb bi dafa présenter des anomalies wala wér yaramu yaay ji am ay jafe-jafe de sorte que bu ñu bàyyee ëmb bi mu dem jusqu'à son terme ndaw si mën na ci ñàkk bakkanam suñu borom nee na bu fekkee c'est attesté par un médecin may nañ la droit nga tàggook ëmb bi alors loolu waral nag comme que dans tous les pays du monde le législateur buy nas ay loi du ko luxus loi yi ça ne tombe pas du ciel euh, législateur bi dafay wéeru ci loolu ngeen tuddee yéen journaliste les réalités socioculturelles daal di nas looy alors suñu législateur ci loolu la wéeru daal di nas l' article 305 du code pénal daal di wax ni charia wax daal di ne avortement tere nañ ko sauf bu fekkee ay médecins attesté nañu ne ëmb bi buñ ko bàyyee jusqu'à son terme mën na mettre la vie de la mère en danger loolu moo nekk sur l' article 305 du code pénal daf ko tere mais joxe une dérogation euh, le code de déontologie de médecins article trente cinq dëggal ko daal di ñun médecin yi suñu code déontologique aaye nañ suñu bopp avortement sauf bu fekkee pour sauver la vie de la mère il n'y a pas d'autre solution di dul avorter nga dem dans l'article quinze de la loi sur la santé de la reproduction bi assemblée nationale votée cet article ne dit pas autre chose waaw kon loolu mooy la les disposition religieuses et euh, pénal qui régissent cette problématique de l'avortement kon suñu dëkk xaraamal na ko boo demee ci catholique itam xaraamal nañ ko julli ci xaraamal nañ ko waaw yow nga daal di defar benn série di wane ne avortement du dara ay xale di ko jouer seen moroom di ko seetaan bu ko defee yaa ngi leen di encourager à un vagabondage sexuel xale yi bu ñu daal ne eh, man day mën naa kii comme que possibilité am na loo naan affaire bi ne bàcc génn ëmb ba yàqu kon eh, dara new ci alors je pense que état bi war na jël ay responsabilités parce que mënul vootelu la l' article 305 du code pénal bi xaraamal avortement di autoriser benn série buy vulgariser l' avortement moo tax nag ñun dañu jógoon bëgg déposé déposer plainte comme ni ñu ko defoon ci maîtresse d'un homme marié ak xeex ak ñoom waaye juste avant ngay ñëw je me suis informé ndekete série boobu euh, suñuy nataangoo et je les salue au passage mu di oustaz Adama sec ci est le secrétaire général de la fédération des associations des des, des écoles coraniques ñoom ndekete déposé nañu plainte léegi nag pour bañ a mel ni dañuy wujjeek ñoom ñun dañuy taxaw xool ba xam plainte boobu fu muy mujj après ñu xam ban taxawaay la ñu am incha allah.